ben li may wax rek mooy que xam nga souvent il faut ñuy lire entre les lignes ce que le président a dit il l'avait dit quand il mettait en place le gouvernement mm. lorsqu'il parlait de gouvernement de combat gouvernement d'attaque et beaucoup avaient dit non il parlait de la vie chère des problèmes des Sénégalais en réalité c'est la même chose aujourd'hui il a mis il n'a pas mis en place mais il est en train de booster les maires pour qu'ils soient aussi des maires de combat encore une fois Euh, aujourd'hui le président n'a pas encore compris n'a pas encore compris le message il avait dit qu'il a compris le message que les jeunes lui avaient délivré mhm. en mars 2021 apparemment jusqu'à aujourd'hui il n'a pas compris et c'est ce message là aujourd'hui moo nekk en France la jeunesse aujourd'hui sont en avance par rapport à nos dirigeants loolu la war a comprendre et ce sera pas l'utilisation de la force mooy tax booy parce que booy ñoo bëggatu ñu leen di na ko doon defee depuis Senghor où aujourd'hui au Sénégal on a un pays ex immensément riche et que les gens n'arrivent pas à joindre les bouts deux mhm. les gens n'arrivent pas à se soigner tey jii c'est cette jeunesse là voilà c'est cette jeunesse là moo leen raw moo tax l'histoire de le dialogue là ou de le dialogue ou quand je parle de has-been et que ñu bëri naan jeune gëm sa bopp boobu n'est-ce ay has c'est la triste réalité on peut pas être au avec plus de 90 pour cent ña nga fa woo yëpp c'est plus de 60 ans 80 ans ngeen di discuter si li les problèmes de la jeunesse et l'avenir non loolu ah, ah, ma wax la mag baax na ci réew man gis bibliothèque la ah, mais réew aussi day dox su fekkee dañuy wax ci subay jeunesse bi seen avenir jeunesse boobu ñoo waroon nekk au devant pour discuter. de mais mais des jeunes il y avait pas que des. Oh, eh, non mais xam nga ñoom jeunes ñaari jeunes. li ma wax rek mag xam nga xam nga xam nga mag yi ngay yi ngay fi sujet tabaxam réew te mag nekk fa mooy fondement ñu ngi fi sujet mais dama ne non pouvons aller priver la bibliothèque universitaire qui est un symbole de de de de moo dama ne la en France ils ont fait pire c'est-à-dire que décrypter le message c'est ce qui est important quand on est dirigeant il faut un manager il faut prévoir bu toog rek affaire yi di la dal nga bëgg à l'instant di xool lu ko et dangay da ngay prévoir tey jii jeunesse bi li ñu soxla wax nañ ko président Bougane wax na ko jeunesse bi soxlaaw ñu ku leen di yedd ku leen di lañu soxla sànq si seen image yi ma gis bi ma toogee si salle d'attente boo yaa ngi jëlaat mbëkk mi di dem. Hmm. problème bi c'est un problème sociétal boo xam ne tey c'est pas en demandant au maire de prendre des dispositions. pour ne pas kenn yàq seen mairie loolu réglé wul le problème parce que c'est beaucoup plus compliqué. il est au-dessus de ça. président li mu wax mooy wut leen seen i yàq. non non non seen i gourdin. président yéen seen question sax. protéger ce que vous avez mis en place. essayé de diluer vos questions. aujourd'hui qu'est-ce qu'on a constaté ci émeutes yi ñëpp nga koy condamné wax nañ ci sànq mënoo gis koo xam ne dafa nekk bitim réew reyante ay at ñëw tijji boutique am en dix minutes ñu yow yàqal ko tout un avenir kenn d'accordul ci yàq. mënoo gis institution yoo xam ne ñun ñoo ko moom. mais tey jii boo waree dem boo waree dem maa ngi ñëw. ma ne wax nga sànq état civil ñu lakk sa mairie tu peux pas avancer. tey li nga xam ne nii xale ñu ngi koy yàq. mais mais est-ce que vous avez condamné ça est-ce que mais ce les jeunes qui moo de déchiffrer le plus accepter d'être gouvernés par des gouvernants tenez ils ont des attitudes féodales. merci yoo xam ne c'est depuis Senghor. li ñu bëgg a xam nga mooy lan. que tey qu'il y ait un équilibre. je suis dans la distribution des ressources. il faut qu'il y équilibre ni ñuy gérer réew mi. loolu la jeunes yi bëgg. jeune boo gis fii dem bitim réew neexu dafa bëgg a toog ci dëkkam. toog ci ay waajuram ay mbokkam tekkee fi. mais ils ont tué l'espoir. li am fii moo am France.